الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ننيو صفات في يمون خنا di wax rek ne sunu boroom subhaanahu wa taala taarub jigéen bi muy araamal jigéen feeñal ko yaramam wépp da ciy dugg boroom bi bëgg a amu bëgg a am ñu mu génne wax na jigéen mën naa feeñal ab taaram ci seen kanam loolu moo tax mu waxewaat ni mu waxe te mooy wala yubdiina zinatahunna illa li buulatihin jëkkër wala boroom kër jigéen mën naa sol lu rafet lu taaru ci kanamam ndax loola bokk na ci liy gën a saxal seen diggante waaye itam baayam moom jigéen ji aw abaihinna jigéen ji itam mën naa feeñal ab taaram ci kanam baayam ndax xelum baayam moom du daj mukk bànneex ci moom noona itam maamam ji jur baayam noona aw abnaihin jigéen ji mën naa feeñal ab taaram ci kanam doomam ju góor noona doom joo xam ne jëkkëram moo ko jur wala ay bokkam ya mu bokkal ndey ak baay wala mu bokk ak ñoom baay wala mu bokk ak ñoom yaay wala doomi ay bokkam yu góor wala doomi ay bokkam yu jigéen aw nisaa'ihinna jooju dañ koo jagleel jigéen ñi nga xam ne ay jullit lañ jigéen ñi nga xam ne ay jullit lañu kon jigéen amul sañ-sañ feeñal ab taaram ci kanam koo xam ne du ab jullit bu jigéen maanaam jullit bu jigéen la jigéen sañ a feeñal ab taaram ci kanamam waaye bu fekkoon ne ab nasraaniya la nekk tubaab boo xam ne gëmul yàlla di jigéen yow jigéen amoo sañ-sañ ci feeñal sab taar ci kanamam noonu jigéen joo xam ne daa am ab jaam jaam bi sañ naa xool ab sangam bu jigéen li feeg li feeg li feeg yow jigéen ji li feeg yaa moom jaam bi jaam bi am na sañ-sañ ci xool sa taar wala ñi nga xam ne dañ leen di topp yàlla xiir leen ci yéen dañ bokk ci góor ñi nga xam ne ñoom amuñu bànneex benn muy jigéen joo xam ne wala muy góor goo xam ne moom xamul sax lu gaal gi riir benn wala ma yu wute nañ ci nee ñu benn ab dof la ñaar am xelam matut ñett mënul ci jigéen lenn ndax suñu borom yàlla ko natt ci bunt bu mel noonu kooku itam jigéen bu dee feeñal ab taaram ci kanamam itam du am benn jafe-jafe wala xale yi nga xam ne ñoom dañoo amagut ak ràññee xale boo xam ne amagutuk ràññee jigéen mën naa feeñal ab taaram ci kanamam xale yooyu am nañ sañ-sañ ci xool jigéen ñi nga xam ne ay jaamur lañ ci ñoom suñu boroom yàlla nag daa leeral ci ne lam yazharu ala awrati nisa mooy ñoom amuñu xam-xam sax ci ku solo ku soluwut ku sumarñiko ku ñàkk sumarñiko lañ yemale ku sañsewu ak ku ñàkk sañsewu lañ yemale ñoom xamuñ ci loolu dara xale boo xam ne am xelam àggagul ci xàmmee yére bu taaru ak yére bu ñàkk taaru mën na koo xam sax mën naa xam yére bi rafet na waaye nag lu jëm ci mbirum bànneex mu la da xamagu dara kooka jigéen am na sañ-sañ ci feeñal ab taaram ci kanamam yàlla itam ñëw tere loo xam ne jigéen ñi dañ ko daa def bu njëkk te mooy dóor seen tànk ci suuf ngir lañu takk di ay téqal ma wala leneen lañu takk di yëngu ngir góor ña xam ne ñii kat am na lu ñu takk loola yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala tere na ko bi muy tëj laay ji mu ne yéen ñi ngëm yàlla ñépp na ngeen tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala ndax ki gëm yàlla moom du ñàkk moos léeg-léeg saytaane xaw koo man waaye bu ko saytaane ma ne itam ndax yi yàlla yi tere fii moom nit ki maanaam mucc ji téeméer ci téeméer xa dana xaw a jafe waaye li am solo mooy nga xam ne boo jàddee nga xam ne jàdd nga waaye itam nga yëg ne da ngaa war a tuub ndax suñu borom yàlla bu la jéggalee faral la say bakkaar moo nga ñàkkoon a def bakkaar ba ñooy bokk benn atte la'allakum tuflihun suñ boroom teg ci ne wa ankixul ayaama minkum fii nag ñi nga xam ne ay kilifa lañ di ay baay ñoom lay waxal ak ñi nga xam ne ay sang lañ dañoo am ay jaam ñooñu la suñ boroom yàlla di sàkku ci ñoom ñu wutal ay soxna ñi nga xam ne ñoo leen yilif te ñooña doon ay ayaama al ayaama mooy koo xam ne amul jëkkër wala koo xam ne amul soxna yow baay sunu boroom nee na sa doom ji nga xam ne yaa ko yilif yow baay sa doom ji nga xam ne jigéen la yaa ko yilif sunu boroom subhaanahu wa taala nee na nga taxawu ko mu daal di am soxna nga taxawu ko mu daal di am boroom kër loolu mooy wa ankixul ayaama minkum borom bi nee na yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen yilif góor ñi ñu mat a am soxna wala ngeen yilif jigéen ñi ñu mat a am soxna na ngeen leen jàppale ci ñu am ay soxna dégg nga bu doon koo xam ne ab jànq la ngay baayam man nga koo jàppale waale ndax man nga koo xoolal ku baax ci moom nga gaaral ko ko loolu doonut lu aay ci lislaam ndax kenn ci saxaaba yi gaaral na doomam Omar gaaral na doomam Abubakar gaaral ko kan Ousmane fekk Ousmane ak Abubakarin am na luñ déggoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko wax ci kiñ leen gaaral moo tax tontuwuñu Umar wax Umar sa xawoon na leen xawoon na leen caa am lum leen ca xaw a dencal tuuti waaye ginnaaw bi mu yëgee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da caa wax ginnaaw bi itam Abubakar feeñu ko ne ko man kat loolu doo nga teema wax ca Usmaan itam xamal ko ne ko loolu doo nga teema wax ca kon daat na xam ne ndekete du dañ koo gàntal ngir dara foofu gis nga Omar bëgg naa wutal doomam ju jigéen muy Xafsa boroom kër mu dem ci kum jàpp ne ku baax la mu gaaral ko ko mag ñi daanañ ko def daanañ gis koo xam ne ku baax la ku ragal yàlla la ñu bëgg ci kooku ginnaaw yàlla ñu mën cee amee ay sët yoo xam ne dañuy taxaw lislaam ñu daal di leen di gaaral seeni doom loola daana am kon yow mi nga xam ne yaay kilifa ndaw si mën nga koo jàppale waale ndax jigéen ji bu fekkee ne ab jànq la li ci gën a bari maanaam xelam du ñor yow mi nga xam ne yaay baayam ni sa xel di ñore am moom am xelam du ñore noonu faw nga jàppale waale ko mu xam ne sëy bi nga xam ne ci la war a dugg wala sëy bi mu war a dugg ab sëy lay doon boo xam ne da caa war a séentu njabootug lislaam waru caa xool rek matière kese rek comme ni mu xewee ci jamono ji nga xam dañ naan léegi boroom kër gi kat jox na ko iPhone nangam am na ñu ma waxoon fii ne bulan bi moo moo kii treize waaw waaw yéena ma ko waxoon ah nga xam ne jigéen ñi dañuy mujj yooyu rek la ñuy wut ah ci kër boroom këram bi bi mu ko takkee jox na ko iPhone treize kon nag man keneen ku may takkati ku nekk itam maa ngi séntu ci moom mu am alal joo xam ne dana am ko man iPhone 13 lu muy jariñ su fekkee ne yow mënoo sëy iPhone 13 lu muy jariñ bu fekkee ne sa jëkkër ji mënta yor soxna iPhone 13 lu muy jariñ bu fekkee ne séntuwoo ci sëy bi njabootu lislaam goo xam ne day taxawu lislaam nit ñi dañoo toll ci jamono joo xam ne wàllu matière rek wàllu matière rek koo xam ne wax dëgg yàlla ah taxut sa loxo jot sa ginnaaw naam. am na nu muy demee waruñu laa jox jigéen nga di ko sonal ndax jigéen tam dañ ko war a taxaw dañ ko war a dundal alxuraan nee na arrijaalu qawwaamuuna ala annisaai bima faddala allahu baadahum ala baad wa bima anfaqu min amwaalihim kon góor gi itam war naa am loo xam ne da koy jël di ko def ci soxna si warta nekk koo xam ne ku ñàkk la sallallahu alayhi wasallam am na jigéen joo xam ne daa ñëw mu di ko laabiire ne ko bu dee diw bul sëy ci moom ndax kooku day dóore bu dee diw bul sëy ci moom ndax kooku suuluuk la laa maala lahu yonte bee ko wax ne kooku yurut xaalis la ko wax yurut alal bi maanaam kon bu la yoree itam da ngay sonn rek da ngeen di ànd yéen ñaar ngeen di sonn rek te jigéen itam na wax dëgg yàlla dañ ko indi ngir ñu yor ko loola du alal joo xam ne ju ne gàññ lay doon waaye nag loo xam ne moom du ci mën a tumuranke ndax jigéen bu tumurankee rek xëy ba ngoon jot daanaka amut lu mu def ci boppam ngir mu tàbbi ci ak mooy yàlla da koy yomb ngir geneen góor de daal koy génne ci sëy bi ne ko sa borom kër kat wax dëgg yàlla da ngaa tàbbi ci moom ba àggal waaye man boo duggoon ci man nanga ma da koy yomb moo tax faaw ñu bëgg itam borom kër bi am lu mu yor donte loolee nga xam ne si moom lay yor mën naa bañ a àgg fenn fi waaye nag itam nag wërta nekk ku ñàkk lool sunu borom subhanahu wa ta'ala nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a doon ay kilifa wala ngeen doon ay sang am ay jaam ñi ngeen yilif wala seen jaam yi na ngeen leen jàppale ci ñu am ay soxna wa saalixiina min ibaadikum wa imaikum lii nag jamtal na ba tey benn as-saalixiina borom bi jublu ci ñi nga xam ne dañoo baax te diine leen baaxal mën a jaam boo yor te muy ku baax ci lislaam mën a julli lool mën a woor lool sàmm lool ak jibéer ab jaam bu jigéen boo xam ne itam danga ko yor muy koo xam ne ku baax la nga xam nekkul ab kàccoor kooka itam sunu borom yàlla nee na nga jàppale ko mu daal di am soxna bi maanaam jaam bi nga xam ne danga koo yor ci biir sag moomeel nga gis ko muy ku ragal yàlla di ku baax borom bi nee na nanga ko jàppale mu am soxna jibéer bi nga xam ne danga ko yor muy jaam bu jigéen te muy koo xam ne itam ku baax la ku ragal yàlla la nanga ko jàppale ci mu am borom kër loolu mooy wax saalixiina min ibadikum wa imaikum wala meneen maanaa mooy assaalixuuna li tazawuj mooy ñi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla itam aajowoo nañ lool takk moo xam ay jaam lañu aajowoo nañ am ay borom kër moo xam ay jibéer lañu loolu itam jamtal na ko wa saalixuuna bañ a tekk ñu baax waaye assaalixuuna mooy ñi nga xam ne mën nañoo takk assaalixuuna li tazawuj borom bi subhanahu wa taala li tax mu tànn ñu baax ñi dégg nga bu fekkee ne jaam bi nga moom day kuy njaaloo wala jibéer bi nga moom day kuy njaaloo boo ko wutalee boroom kër kon danga wutal ku fegu koo xam ne day njaaloo bu dee jaam bi nga xam ne day njaaloo ba nga xam ko te yaa ko moom soo ko wutalee soxna soxna soo sa tàbbal nga ko ci guutaa ndax danga ko wutal jëkkër joo xam ne am njaalookat la moo tax borom bi daal di wax ne wa saalixiin ñi nga xam ne ñu baax lañ min ibaadikum wa imaikum li nga xamee ne moom la góor di faral di aajowoo ci ab sëy te lu ci bëri moo koy tee takk soxna mooy ñàkk am alal sunu borom yàlla daal di dut baaraam foofu ne in yakunu suñu nekkee ñoom borom kër yi fuqaraa di ñu ñàkk yughnihim allahu min fadli yàlla dana leen woomalal ci ngëneelam yow mi nga xam ne dangaa ñàkk yàlla sa borom dogal nga bëgg a deltu ginnaaw ndaxte dangaa déedéet dangaa jàpp ne boo duggee ci sëy bi maanaa mën na laa jural li nga daan am far yam ca sëy ba far benn yoon ñu bëree bëri looloo leen teg te teet ak soxna maanaam ndax ñoom ni ñuy natte ni ñuy natte moo baaxul mooy ñoom dañ naan gannaaw man damay fayeeku weer wi ñaar fukki junni su ma fi takkee soxna yàlla na tooma ca ak njaboot kon ñaar fukki junni yooyu farmaana daa ko moom du du leen mën a doy nga yaa ngi natt yeneen te xamoo ne njaboot googu yàlla moo leen di wërsëgal bu ñëwee alxuraan nee na nahnu narzuquhum wa iyyakum njaboot gi nga nar a am ci sa soxna si man yàlla maa koy jox wërsëg waaye léeg-léeg seytaane mën na laa ragal loo ne la boo takkee soxna ba tàmbali cee amuk njaboot la nga doon amakus néew sax boo maytul mu far yem ca te boo maytul sax da ngay gën a aajo woowaat loolu la yàlla su boroom di génn ci xel yi mu ne su fekkee ne da ngeen a ragal dugg ci soxna di ah di ñàkk ni ngeen xam ne yàlla moom ku woomal la koo xam ne mën na leen a jox loo xam ne da ngeen ca mën a yor seeni soxna wallahu waasi yàlla ku yaala yàlla ku bari ngëneel la waaye alimun itam yàlla itam ku xam ñan ñoo yayoo ngëneelam loolu moo xam ci diine la moo xam ci wàllu addina la kenn ku ci nekk suñu borom subhanahu wa taala xam na la nga yeyoo mu jox la ko baraana koo xam ne bim duggee ci soxna te yàlla dong tax mu dugg ci yàlla dong tax mu dugg ci ngir bëgg a aar boppam ba du tàbbi ci njaalo wala yaasu billahi taala moom dong tax mu dugg ci kooku bu duggee ci soxna suñu borom yàlla ci boppam mooy ñëw jàppale ko mooy ñëw dimbale ko ay buntam day gën a ubbeeku moo tax gis nga yéene lu am solo la waxambaane yi ku ciy dugg soxna ku ciy dugg ci soxna na nga am yéene ju rafet yéen jigéen ñi itam ku ciy dugg ci boroom kër na nga am yéene ju rafet yéene ju sell xam ne lii ak jaamu yàlla la bañ koo jàppee rek muy loo xam ne bànneexub kese-kese la boo gisee góor ñu baree baree baree bari di am jafe-jafe ci seen néegi sëy yi maanaam yéene moo ci dul faral di am ju leer wabtaxu maa kataballahu lakum soxna si li ci gën a bari du am yéene góor gi itam li ci bari du am yéene ñaar ñu daje rek lañ doon daje ci bànneex maanaam bànneexub kese képp a leen boole ñaar nag bu leen bànneexub kese kese kese boole bànneex ba saa bu tàmbalee manqué kenn ko yuqat moo xam góor gi moo dem ba bànneex ba mu doon am ca njëlbeen ga di manqué ci borom kër bi wala borom kër gi dem ba yàgg bànneex ba mu doon am ci soxna si di manqué subaa yuqat da koy daal di yóbbu ndax moom léegi bànneex lay wur loo wax ñaari baat mu wàcc la loo wax ñaari baat mu wàcc la lu tax ndax ñoom bànneex lay wër dem wutiwaat keneen kooku itam bu ñëwee mën naa am li fi ma ngi cee am bànneex mu di ko téye waaye bu demee ba nga xam ne bànneex ba tàmbali naa wàññee ko itam wàccaat ko ñu bëree bëri noonu la ñuy tekki ñoom ndax bi ngay tekk soxna dangaa am yéene yokku lislaam njabootu lislaam ndax dangaa am yéene yàlla may la njaboot goo xam ne dañuy taxawu lislaam jigéen ji itam ndax yéene ju mel noonu la am bu njëkk wallahi amoon nañ ay jubluwaay ñoom jigéen ñi ndax seen baay ñoo leen daan yar seen yaay ñoo leen daan yar di leen gëmloo loo xam ne buñ ko xasee gëm sëy ba lu baax rek lañ ciy mën a am waaye fi mu toll ni tembe tey tey ci suñ jamono ji daanaka jigéen yaayam sax di toog ak moom di ko leeral lu jëm ci mbirum sëy ak ni mu amee solo boo ci tàbbee na sa yéen a rëy ndax lee yàlla man laa jox njaboot goo xam ne dañuy taxawal islam loolu lépp daanaka amatul amoon na jigéen joo xam ne dañ koo togg li ñuy tudde togg mu war a dem sëy mu ñëw ba war a wàcc ci kër boroom këram te fekk baayam daa wax ne nañ ma ko joxal diw diw moo ma sax yëgut ndax bëgg lu baax rek ak di séntu ci diw mooma lu baax bi ñëwee ba ca buntu kër ga am ñu daal di dugg ndànk daal di dey diw ne ko diw sàngam dalaa toggal soxna mi ngi ci buntu bi mu ne ah soxna nga waxa mu ne ko waawaw soxnaa ngi nii ci buntu bi mu ne fu mu jëm ñu ne ko yow la koy jox mu ne man awma lu ma ko ganalee di aw ma lu ma ko ganalee di soxna sa far dégg loolu soxna sa nga xam ne moo nekk ca kaw fas wa ñu war koo wàcce loola ne toq ci noppam mu daal di woo waa ji ba mu ñëw mu ne ko mbaado daa daa bëgg a gàntal te saa baay am ci moom yaakaar mu ne ko bëgg naa gàntal de mu ne ko lu tax muy gàntal mu ne ko nee na daa amut lum la ganalee mu ne ko man saa kër baay yàlla dogal na am naa fa xar moo xam ne maa ko moomal saa bopp gaawal nga dem su fekkee ne nangu naa jël xar moom mu ganalee ma ko nga dem jëli xar mooma nga indi ko ci kër gi mu ganalee ma ko te yàlla rek tax waaye defe ngeen ne sëy boobu yàlla du ci def barke ah yàlla dana ci def barke dana ci def barke xoolal ak ki nga xam ne danaan saa boroom kër moom mbaa mën na maa jëndal iPhone 13 nga ne ko déedéet mu daan ne ko nañ seeti keneen kooka njaboot ku ca jugoo itam ay nit ñu bëgg àddina la ñuy doon ñoo xam ne daanaka ñoo reyante ci àddina bi ñu bëree bëri seen njaboot yi ñoom ñoo leen lor ñoo leen lor wallahi buntu bi am na yu ma ci xam yoo xam ne si su ma ko doon nettali ngir jublu ci jigéen ñi man koo jariñoo damay ragal ña ña nga xam ne ñoom ñooy boroom yëf ya bañoon mu génn bañoon mu génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom ne ko dama laa bëgg a may saa bopp jigéen moo ñëw ci moom ne ko daa laa bëgg a may saa bopp ndax yonent yàlla muhammad yàlla may na ko loolu wamraatam mu'mina in in wahabat nafsaha linnabi in arada annabiyu an yastankihaha loolu nag xaalisa laka min dunil muminin jigéen daa ñëw ci kanam yonte yàlla muhammad ne ko daa laa bëgg a jox saa bopp daa laa bëgg a may saa bopp mu siggi xool ko wax dëgg yàlla amut ci moom rax ba amut ci moom xemem teef mu daal di sëggaat ndànk yóoraat bopp ba jenn waay ju fa nekk ju ko aajow daa nekk man de boo ci amut aajo man am naa ci aajo fulla itam lu am solo la waaw man de boo ci amul aajo am naa ci aajo ah loolu de wax dëgg yàlla daa wax dëggam rek mu ne ko waaw ndax am na loo ko jox xoolal xoolal xoolal buntu bii rek yent yàlla Muhammad ne ko ndax am na loo ko jox mu ne ko ah lu ma ko jox xanaa xanaa sama isaar bi maanaam maanaam li ma woo doon nii jamono jooja ndeysaan sol ab bolok sox ndeysaan da ngay wodd rek mu ne ko xanaa li ma woddoo nii mu ne ko lool loolu soo ko ko joxee looy woddooti ne ko ndax am na loo mokkal ci alxuraan mu ne ko waa mokkal naa saar sàngam mu daal di ne ko zawajtuka bi ma maaka min alquran maanaam may naa la ko ci alxuraan jii nga mokkal nii saar wi nga mokkal nii may naa la ko ci saar woo wii waaye nag danga ko koy jàngal kon gis nga can nga man faa la njariñ la daa nekkoon man faa boo xam ne bu ñu mën a téye ci loxo la nii waaye njariñ la xoolal buntu booba am na ñoo xam ne noonu lañ daan mayee ñoom seeni doom ngir wut ca barke ak di ca séentu aw yiw aw yiw di ca séentu barke ak di ca séentu aw yu te li ci bëri yàlla da leen cay fekk si ci barke boobee wallahi léeg-léeg nga gis mbaaxu koo xam ne si mbaax gi ci bopp da lay jaaxal waaye boo ko toppee dëggantaan fa mbaax ga jugee fu soree sore sori la fu sori la waaye gis nga dañoo nekk ci jamono joo xam ne si léegi daanaka yii sax boo ko dee wax day mel ne ay léebëgg lu peen ay léebëgg lu peen ah ay léebëgg lu peen lay nuróol suñu borom subhanahu wa taala nee ne in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli wallahu waasi alim mu tekki moom sunu boroom subhanahu wa taala lan wal yastaafif rik waaye na fegu na fegu ñan ñooy fegu alladina laa yajiduuna nikaaxa koo xam ne nag dangaa tële yàlla nee na nga fegu bul tàbbi ci lu araam lépp loo xam ne mën naa tax nga fegu te mooy bul toog mukk di xalaat ci jigéen te xam nga xel ne yoroo alal joo def ci jigéen yoroo loo mën a takk jigéen bul jël sa xalaat yépp def ko ci jigéen di ci xalaat xalaat yoo xam ne mën na laa tàbbal ci lu araam waaye na ngay dëkke woor yent yàlla Muhammad ne yéen waxambaane yi koo ci xam ne am na man mënu takk soxna na daal di takk fa saasa koo ko ci mënut nag dénk naa la ngay woor ci buntu fego la bokk soo bëggee fag sa bopp man ngay woor yow jigéen ji itam bu fekkee ne amagoo boroom kër del woor benn yow mi amagut boroom kër yàllaa ko dogalut ndax am jigéen nga wala yow góor gi yàllaa dogal amagoo loo yore jigéen amagoo loo yore jigéen say kilifa benn amuñu alal ba mën laa dimbale bu dee ab jaam ab sangam amul alal ba mën koo dimbale wala sax maanaam ñoom mën nañ laa dimbale waaye da ngeen a jubawut ci wàllu pas-pas xëy na moo tax ñu ñu ñu téye seen alal ñoom duñ la jàppale loolu tam léeg-léeg mu am bàyyi yoo xam ne si danañ la mën a dimbale sax waaye xëy na sa pas-pas bi ak sa ngëm-ngëm gi nga ne gi nga nekkee dañ la ci bëgg kii naan la xam naa ne li feeg bàyyiwoo lii nga gëm nii bu fekkee la nga gëm alxuraan ak sunna la moom sëñ bi bàyyi ba nga dee ci de nga dee ci laa wax moo gën ci yow ngay fekk si ay ni ñu lay takkal soxna ngir nga bàyyi sa pas-pas boobu di alxuraan ak sunna dégg nga borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñuy ñoo xam ne mënugu ñoo am ay soxna nañ fegu ba kañ fegu ba kañ ah xatta yughniyahumullahu min fadlik bi maanaam suñu borom yàlla léegi mu ñëw nag su fekkee yaa ngi woor di moytu lépp loo xam ne lu araam la ah bul wax rek ne jigéen ñi takk leen daa jafe boo bëggee am ay ay ay ay cinq cent mille takk ko di ko joxe boo am bëggee ay deux cent cinquante mille takk ko di ko joxe kon daal nañ dem ci ñi nga xam ne si ay taxawaalukat lañ ñuy jaay seen bopp sëñ bi nga ne ca ñooña nga jëm yow ndax lu tax ndax nee nga maanaam alal joo xam da nga ko def ci soxna amu kon yaa ngi dem ci ñi nga xam ne si ñoom maanaam taalibey seytaane lañ seytaane dafa am taalibe mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp lu yaasu billahi taala man xamoon nooy jaay sa bopp moomu sa bopp nit ki daa amul ab sañ-sañ ma qul a'udhu bi rabbin naas malikin naas ilahin naas nga naan yaa moom sa bopp yow nga am rabbu am ilah am malik ma nopp naan da ngay jaay sa baab soo daa jubut jaay sa bopp da ngaa moom sa bopp di ko jaay ah xoolal xoolal xoolal googu toskare rek xoolal googu toskare rek sëñ bi amul benn liggéey ci àddina bu noonu laan da ngay jaay sa bopp ba noppi itam am ñoo xam ne seytaane itam foofu la leen jëmee ñoom tam ñuy ñëw maanaam di la jënd isaan yàlla nañu yàlla musal yàlla na yàlla musal te yàlla na nu yàlla aar wallaahi yàlla na nu yàlla aar yàlla na yàlla aar te sàmm nu waay la ilaha illallah nga xam ne yow sa liggéey mooy da ngay jaay sa bopp waaw sunu borom yàlla nee na yow moo mii nga xam ne da ngaa amut boroom kër na nga fegu del woor na nga fegu na nga sàmm julli juróomi yow mii nga xam ne da ngaa amut soxna na nga fegu del woor na nga fegu del jàng alquran wala nga dugg asamaan nga dugg àll bi sax di xool asamaan si di ko seetantal malakuutu samaaru ard ah ngay xool géej géej gi géej gi ni ni mu réyee ni ak ni ko yàlla binde ngay ngay xool dex yi di xool asamaan di xool asamaan si ah loolu kat moom sus nga ngay xalam naa na est-ce que suñu borom yàlla ah lo loola loola mën naa ko sa diggante ngay tàbbi ci li am na fo am na kat am na foo mën a teg sa tànkat maanaam yëf yi du ne du force da ngay dem def tab def tab ci njaaloo loolu du du loon du loon li ki daa war a góorgóorlu waaw xool leen yonent yàlla Yuusuf nekk ci ak kër jigéen ji nga xam ne moo ko yilif di soxnas buur bu doon jamono ji da nga naan soxnas président la gis ko muy ko am taar di waxambaane tollu ci digg dooleem mu di ko sàkk bam ne ko hayta laka da fa saasa nit ku fa di xalaat rek maadallah la ko wax fa saasa nit ku fa di xalaat ndax buntu ba du buntu bu ñu xalaat buntu ba boo ci xalaat seytaan man la boo naan ko maanaam waaw lii nga sàkku sax xëy na léegi bàyyi ma xalaat bu boo ci xalaat seytaan di la man loolu du lu ñu xalaat gaawal nga daal di dellu ci yàlla maadallah loolu moo lay dimbale suñu borom subhanahu wa taala kon nee na yéen ñi nga xam ne amal amagu leen alal ju ngeen mën a def ci ab sëy mënagu leen a takk soxna sunu borom yàlla nee na na ngeen fegu mooy lépp lu leen di dimbale ba du ngeen tàbbi ci bakkaaru njaalo ngeen def loola wal yastaafifi alladina laa yajiduna nikaaxa xatta yugniyahum allahu min fadli walladina yabtaguuna alkitaaba mimma malakat aymaa ah nukum fa kaatibuuhum in alimtum fihim xayra walladina jaam ñi nga xam ne yabtaguuna ña ngay sàkku alkitaaba ak bindoonte muy mukaataba tañ bokk ci ñi nga xam ne yéen a leen yilif mimma malakat aymaanukum jaam bi yaa ko moom mu dem ba yàgg mu ñëw ne la man kat dama bëggoon a joxe alal ngir lan ngir doon af gor borom bi ne na ah na nga ko fekk si ci loolu bindoon na nga bindoon teeg moom fa kaatibuhum na ngeen bindoon teeg ñoom waaye nag cib sart mooy in alimtum fihim xayra su fekkee ne xam ngeen ci ñoom ñoo ñiy sàkk ku bindoon teeg ñoom xayran mooy am nañ kàttanug mën a dem wuti alal ñëw jox leen ko gis nga lislaam itam maanaam bu nit bëggee jot boppam du gàllankoor nit kooku ndax bu fekkoon ne ki nga xam ne moo yilif jaam bi yow boo ñemee ne ko damaa bëgg a doon asgor dama laa bëgg a jox nangam moom mu lànk kon da ngay continuer di jaam rek waaye borom bi jox na ndigal ki la moom soo ñëwee ne ko damaa bëgg a doon asgor bëgg nga wax ma lan laa lay jox pour doon asgor borom bi nee na kooka nangul fa kaatibuhum waaye nag bu fekkee ne xam ngeen ne ñooñu am nañ kàttanu man leena indil li nga xam ne moom ngeen di sàkku ci ñoom te lu ngeen ci mën a def nag te yàlla rek tax ngeen def ko wa aatuhum na ngeen leen di jox min maalillahi alladi aataakum maanaam alal yi suñu borom yàlla ñi nga xam ne da leen koo jox loolu sang bi dugg na ci mooy nga wàññil ko bu la waxee ne la ah man ka damaa bëgg doon asgor nga ne ko léegi téeméeri junni ngay joxe su boroom xoolalaay ji bu fekkee ne ku xam alxuraan ga bu ne laa loolu de wax du ma ko man laay ji daanaka moo lay xaw a moo moo la moo moo lay moo lay moo lay joo ci li ngay def ne ah tey ngaa jox juróom tey ngaa joxe juróom-ñett fukki junni rek mu ne wax dëgg yàlla loolu du ma ko man de laay ji ba de du la bàyyeeku wa aatuhum mimma lillahi alladi aataakum mën ngaa dem ak moom ba ne ko sax léegi ñaar fukki junni rek boo ko joxee incha allahu taala da nga doon as gor ndax yàlla itam bëgg na. nga bañ a lor sab sang waaye itam bëgg na sab sang itam jàppale la ndax da ngeen di jàppalante rek wa aatuhu min maalillahi alladi aataakum dana ci duggaale itam yéen ñi nga xam ne da ngeen a xam ne moor mii wala sàmba mii daa bëgg a doon asgor ba tax mu bindoon teekum sangam ci téeméeri junni yéen tam alal ji leen yàlla sa borom jox na ngeen ci jox kan moor mii ndax mu mën a fay ab sangam ba mën a nekk asgor ndax alal ji ngeen yor yàlla leen ko jox wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum borom bi tekki lan wala tukrihu fatayaatikum ala albigaa in aradna taxassuna li tabtagu arada alxayaati dunia abdullah ibnu ubay ibnu salul dafa amoon ay jaamam yoo xam ne si da leen daan gax mooy da leen daan forcé ñu dem di njaaloo ji dégg nga bu ko defee lañ koy jëlee ñu leen di fay noonu loola moom moom moom moom lañ koy jox nga xam ne moom jaam yi mu am da leen di forcer ne leen maanaam faw da ngeen dem njaaloo ji lañ leen di fay ngeen ñëw di ma ko jox mais na nga am jaam boo xam ne naan ko demal nga mineebaru ji lam fay jëlee bu ñëwee mu la koy jox suñu borom subhaanahu wa taala nag bi lislaam ñëwee mu daa di araamal daa di tere ne bu leen gax wala tukrihu fatayaatikum ñi nga xam ne ay jànq lañ di aw jigéen bu leen leen ga ci lan alal bi xa muy prostituée ngeen koy waxa ah prostitution la ñuy wax noonu la waa mi ngoog waaw mooy mooy mooy daal mooy mooy mooy daal dem njaaloo ji bul ko gàcc ne ko faw rek nga dem njaaloo ji bu fekkee ne in aradna tahassuna ñoom dañoo bëgg lan fegu ñoom bëgguñoo njaalo bëgguñoo njaalo waa léegi waaw loolu ndax ndax ndax ndax am na ma fu mooy kon ñoom bu fekkoon ne dañoo bëgg a njaalo ji ndax kon da nga am sañ-sañu bi yow nga di ko gàcci loolu loolu ma laaj leen ko ah ma fu mu charte bi da loolu lay joxe bu leen leen ga ci njaaloo ngir ngeen di sàkku poñetum addina li tabu taxaw aradal xayaati dunia tax ngeen leen di ga ci wàllu njaaloo kañ in aradna taxassuna mooy bu fekkee dañoo bëgg a fegu xanaa léegi kon bu fekkee ne ñoom bëgguñoo fegu bëgg ñoo téye seen bopp ah xanaa kon am ngeen sañ-sañu maanaa galeen ci njaalo déedéet waaye loolu moo nekkoon mafhum bi waaye mafhum boobu kenn du ko jël lu tax mafhum bu kenn du ko jël mafhum boobu li tax kenn du ko jël mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bu dee wax ci loo xam ne jamono bim ci wax loolaa doon xew mooy dafay xikaaya ab waaqi loolu du am mafhum am na juróom ñetti tomb yoo xam ne kenn du fa jël mafhum wadaa ida saakitu anhu xaafa aw jahila alxukma dégg nga awi sulan jalab li suli aw jaraa ala alladi galab aw imtinaanin aw wifaaqi alwaaqici waljahli waltaakidi inda saamici maraqisoot boroom maraqisoot nee na am na foo xam ne kenn du fa jël mafhumul muxaalafa mafhumul muxaalafa mooy lan li atte bi saxal nga jël safaan ba saxalal ko lañ tuddut ah li atte bi saxal nga jël safaanub loola saxalal ko lañu tuddut almaskuutu anu ithbaatu naqiidi xukmil mantuqi lil maskuuti anhu loolu la ñuy wax mafhumul muxaalafa foofu nag dafa am juróom-ñetti tomb yoo xam ne kenn du ko fa jël bokk na ci bu fekkee dañuy nett li loo xam ne waaqi la lu mel ne tey waraba déedéet loolu loolu aglab la jaraa ala alladi galab laa yattaxidu almuminuuna alkaafirina awliyaa min duni almuminin ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla buñ dem di féeta jéeg yéefar ya bàyyi ñan ña gëm yàlla mafhum bi mooy li ñuy tere kat mooy dem féete jég yéefar ya bàyyi ñi gëm yàlla kon su fekkee ne jamono jaay dem di féeteeg yéefar ya maa ngi ko boole waale ak di féeteeg jullit ñi kon dana dagan déedéet ndax jamono bi aay ji wàcc daa fekk ñoo am ñu doon def lu mel noonu laa jiite bi mu wàcc daa am ñu doon def lu mel nii moo tax doo jël ma foom bi moo tax gis nga lislaam ñàkk koo jàng ci ni mu gën a xóote mën naa jural nit mu jekk-jekk rek naan waaw gis nga laay ji day war a ne bu fekkee jigéen ñi dañoo bëgg a taxasun kenn amul sañ-sañ ci forcer leen waaye bu fekkee ne bëgguñu ko ne mën nga leen a forcer daal di jël ma fumba moom ma fumu xaalis nga daal di koy jël fa saas mi ngi mel ne koo xam ne daa réere ab atte moom xam na ne alxanam as-saa'ima zakatun war na ci asaka mooy jur goo xam ne si da nga koy topp di ko sàmm mu xam na ne asaka war na ci waaye xamut ne jur guñ yeew ci ak kër asaka war na ci loolu xamut nga laaj ko mu daane la fil ganami saa imati zakatun jur goo xam ne da nga koo jiital de moom di ko sàmmi ca àll ba day war nga caa joxe azaka moom loolu la la tontu waaye jamono bi mu la koy tontu daa réere waale ne jur gu yeew ci kër gi kenn dana ca joxe azaka loolu du ko réere kon doo mën a jële ci lim tontu ma fuumu ne kon jur gi nekk ci kër gi waruñ caa joxe azaka mënu ko caa jël dafa am ay barab yoo xam ne kenn du fa jël ma fuumul muxaalafa laay ji ci la bokk borom bi nee na wa man yukrihunna jigéen ñooñu nga xam ne dañoo bëgg a téye seen bopp bëgguñoo tàbbi ci bàkkaaru njaalo yow mi doon seenub sang boo leen forcé boo leen ga boo leen gaxee bañ tàbbi ci bàkkaaru njaalo itam ñoom duñ ci am benn daal ndax yaa leen forcé moo tax fa inna allaha min baadi ikrahihinna ghafur rahim gannaaw bi nga leen forcé ba àggal itam suñu boroom yàlla nee na man ab jégalekat laa waaye ab yéreme kat laa bu kon mu metti di bu fekkoon ne maa dañ laa forcé nga dem njaalo ji wala yaasu billahi taala ba noppi wal bëtiku maanaam amaat bakkaar bu réeréy day gën a day métti waat ci yow amoo amoo ci woon sañ man man man ndax xamoon ngeen nga ndax xamoon ngeen Sénégal fi mu toll fi mu toll Sénégal fi mu toll ndax xamoon ngeen ne am na jigéen ñoo xam ne dañuy luye appartement ñaar ñett ñeent juróom juróom benn dañ ma ko wax nag ndakaaru gee lañ ma wax ne am na ko nee nañ ma am na jigéen ñoo xam ne dañuy ñeent ba juróom ba juróom benn dañuy ñëw jël engagement ci benn appartement boo xam ne dañ koy lañ koy luyee daanaka ay cinq cent mille mat na ko ñoom ñu luyee ko léegi luñ fay liggéeyee dañ fay xëy di jaaya déedéet dañuy jokkoo ak ñoo xam ne ay personnalité la ñuy doon xamal leen leen appartement bi nekk bara sàngam ñun ñoo fa nekk nga sol sa dara sëriñ bi ay man man nit ki man léeg-léeg nit man léeg-léeg damay xaw a jaaxal maanaam yow bi ngay dem nii di dem nii te mu wóor la ne fa nga jëm maanaam lu araam nga fa nar a dem est-ce que yow yaa ngi xalaat yàlla est-ce que yow doo accident ci yoon wi est-ce que mënoo accident oto bi mënta accident ci yoon wi nga wuy ji yàlla fekk ba ngay wuy ji yàlla maanaam sa la nekkoon ci sa xol bi mooy wala tàbbi ci bàkkaarum jaar wala nga dem fa nga xam ne maanaam fa la gaa jigéen ñoo ne nekk far far far far faatu fekk la fa mën naa nekk di gis nga nit moom faw faw faw mu ragal yàlla maanaam mënta ñàkk ci moom wa illaa kon bi def lu araam di alladina yaxshawna rabbahum bil xaybi wa hum min asaati mushfiqun ha lil muttaqina ko jiitu nag wa zikra itam moo jiitu wa diya an moo moo kii dégg nga wa laqad aatina musa wa haaruna alfurqaana wa diyaa wa zikra lil muttaqina alladina yaxshawna rabbahum bil xaybi wa hum min asaati mushfiqun ñi ragal yàlla ci kumpa jigéen ñooñu nee nañ ma dégg nga ma comme xaw nañoo bari tuuti kee ma ngay am ñu muy ñu muy ñu muy jokkool ñuy ñëw ñoom kee ma ngay am ñu muy jokkool ñuy ñëw su weer dee ñu dajale lañ am dajale ñu xool ñu calcul liñ am loolu araam luñ am ah ñu ñu dajale après ñu nee na ñu fay appartement bi la ca def ñu séddoog si la ilaha illallah lii nee nee nañu am na Sénégal waaw lii nee nañu am na ci réew mi waaw am na fi de am na yoo xam ne sax am na fi mu gën mu gën a doy waar ci ci yi may wax nii léegi nag léegi nag léegi nag su fekkoon ne dañoo bëgg yooyu dakk mbaamu wàññeeku nu ñuy def mooy dañuy fexe ba tasaare njàngalem lislaam tasaare njàngalem yàlla tasaare njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne yonte yàlla Muhammad bi muy ñëw ci àddina fekk na fi lu gën a doy waar fuuf arab yi amoon nañu ay kër yoo xam ne si ñaalo lañ fa daan def wut ay ay drapeau lañ fa daan takk nga xam ne lay wër na kër yi nii maam kër yi njaaloo la danga koy xam danga koy xam amoon nañ aada yi tax nga sa yëg jigéen ba noppi wal ba di ko daal di koy su jébbalaat geneen góor mu séq ak moom ngir la dangaa bëgg doom joxaane bu ñëwee maa day jàmbaare lépp dañ ko daan def waaw am ponkal ngay dem wuti séq jigéen ji ba noppi boole ko koo xam ne am ponkal moom dama moom loolu rek moo ko tax a jóg moom ci àddina su dee nii gaa yi nga xam ñooy nekk coodu géej gi di di di di di di yëkkati lu ñu diis yooyu noonu bul defee ne ngir yàlla daw nga tax ñu koy def waaw bu ñu ko ngir jëmmi suñu borom yàlla de ay man daal ñu jaaxal nañu ñoom itam ah buñ buñ noppee sol loo xam ne si maanaam day day génne seen dënd bi pour pour pour ñu ñu. addina addina addina addina addina addina addina addina addina day na war. wallahi moo tax bis penc faaw mu doy waar kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara laa wax bis penc faaw mu doy waar sa pare suñu yàlla dekkil jaam ñoo xam ne suñ bi bi ñu nekkee ci kaw suuf yëpp yëpp mooy lañ ko doon def ah yent yàlla moo xamante ne bis penc yàlla mer na mer moo xam ne sii li jiitu bis boobu mosu koo mer te bis boobu jàllee du ko mer yonente boo dem loolu la lay wax dana la tey yàlla mer na mer moo xam ne mosu koo mer loolu ku ci xalaat da ngay daal di xam yàlla maanaam ñàkk gi ñàkk a topp nit ñi li ñuy def nii du da ko bàyyi de ba yuwu de bi mu ne wa rabbuka alxafuru du rahma law yu aaxiduhum bi maa kasabu la ajjala lahum al azab da caa teg lan bal lahum mawid am nañ mawid bu ma am ak ñoom boo xam ne lay yajidu min dunihi mawida kon bay wut ñooña bakkaar yu rëy yi ñu def yépp yàlla bay wut ci dara bay wut ci dara bayu man da ko da leen ko mu aaxasa wut mooy wàcce wut mbugal mu daal di ñëw fa saasa waaye ànd ak loola bayu ko mooy dana dana ko rek la yowmal xeyam ko rek la yowmal xeyam dangay xool nit ku dekki yowmal xiyaam ba ngay dekki na na nga dekkee na nga dekkee doy waar lool ah alxuraan dong nga mën a defar nit képp du leneen leen loo mën a jël di ko jàng bu la neexee nga jàng ko junni yoon laa wax bu fekkee ne doo ci gis loola yàlla naan defal yàlla naan la bàyyil doo xam ne ngay def maanaam sax nga loola dem ba jàpp la foo xam ne man say daa man dalaa man nel xamale ak ak nga foo xam ne si daanaka mënutoo mën fi mu toll nii loo def itam du la wàññi dara man ngay jàng loo xam ne si du alxuraan man ngaa dem ba seytaane man la ne la fi mu toll nii nag àgg nga foo xam ne si fi mu toll nii dara mën na lootu dara waaye bu fekkoon alxuraan ngay jàng tey ji yàlla moo lay xamal ne inna allaha laa ya'muru bil fahsha laa tattabi'u yaa ngi koy gis xutuwaati seytaan saa bu nekk alfa moom li tax mu baax mooy saa yu nekk rek yàllaa ngi lay wax li nga war a def alxuraan li ko tax a baax mooy saa yu nekk yàllaa ngi lay wax li nga war a def saa yu nekk yàllaa ngi lay wax li nga war a bàyyi saa yu nekk rek ngay gën di jub di gën di dem rek di gën di baax rek alxuraan moom gën di baax dong mu ngay def di gën di sell di gën a ragal yàlla ba keroog nga naan yulub àjjana rek kan lañ ko sa borom defal gën a baax gën a baax gën a baax moom alxuraan rek waaw loo baax tey bu subaa nga yokk ko ndax noonu la yàlla alxuraan noonu la ko tëdd noonu la ko tëddale parce que démb damaa gis yenn laaye dem naa ba na jeexut ba sax man laa yi dama koy xool xool xool xool xool sëñ bi man sëñ borom moo bëgg ku baax waay ah yàlla moo bëgg borom jikko yu baax te borom jikko yu rafet wala tastawi al xasana wala sayya fekk daa am lu mu doon waaj a santaane daa di koy wutal benn tamhid daa ne xamul lu xewa sayya moom mën ta yem mukk mukk ak xasana ba loolu dugg sa bopp bi ba noppi mu soog laa wax na la kon nag idfa bi lati ahsan fa ida alladi baynaka wa bayna adaawa ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xawdin azim waaw gën a gën a gën a gën a baax rek waaw loolu loolu moom maa ngi koy waxaat maanaam ku yàlla dimbale ci alxuraan nga gën di ko setantal di ko gën di xalam di ci gën di kii da ngay da ngay gën a baax rek walladina htadaw zaadahum huda ci dop wa aataahum taqwaahum waaw gën a gën a baax rek mooy mooy mooy fa amma alladina aamanu fa zaadathum imaana wahum yastabshirun gën gën a baax rek ndax ndaxte saa yu nekk yaa ngi gis ay atte yu yees yoo war a jëfe xam ne soo ko jëfee da ngay gën a baax yàlla na yàlla sa borom dimbalee gën a baax yàlla na yàlla dimbalee gën a baax waaw deltu ginnaaw moom yàlla na ci yàlla sa borom musal waaw te lu mën a nekk la nag man ngay dem ba yàgg ngay deltu ginnaaw rek te doo ko yëg jënd waaye neen day soog a ñëw Dakar fekk dañ dañ ko defaroon ku defaroon la woon muy soog a ñëw Dakar xam naa ne ni Dakar bindoo xale yu jigéen yi mu leen di xool nan woo fii moom doy na war di xam léeg-léeg bu université bu ñu soog a wàcc noonu nga xam ne xale yu jigéen ñëpp ay génnandoo ñëpp daanaka ay xale yu toll ci dem say kenn solul lu baax muy xool naan sëñ bi fii doy na war di ah on sëñ bi lii doy na war di xam nga Dakar boo fi soog a ñëw di wax yu mel noonu yow ñi nga àndal sax da nga leen di yéem maanaam li ngay wax lan la muy dem di dem ba yàgg mu jékki-jékki na waa daa mel ni ñu ngi wàññeeku nag dafa mel ne ma ne wàññeeku wuñ de waaye yow la sa ngëm di nga wàññeeku yow sa ngëm gi mooy wàññeeku waaw sa ngëm gi mooy wàññeeku da ngay dem ba yàgg maanaam yooye doo ko yëgati laa wax doo ko yëgati li gën a doy waar ci kaw suuf mooy nga dem ba yëgatoo bakkaar billaahi nit dana ci àgg waaw nit dana àgg ci dem ci ay armeel laa wax di fa sàcc nit dana àgg ci dem ci ay armeel fa nga xam ne fa la waroon a teewloo mu fay teew mu fay teewlu nit ñi fa mu waroon a teewloo dafay teewlu nit ñi maanaam mos naa ma fekk ab rob ñu jékki-jékki rek am ku ñuy dóor néew baa ngi dugg de ñu naan da ko da ko sàcc ma di ko xool ba yàgg ma kat am na ku ñu rob nii te moom foofu ñu robee mbooloo mi ñooñu noonu la def occasion pour sàcc ci ñoom nga ne ko yëgatu dara moom yëgatu dara sunu borom subhaanahu wa taala nee na wa laqad anzalna man nekk te li ma doon wax lépp sax moo nekk sama kanam ah sunu borom yàlla nee na wa laqad anzalna parce que wa laqad anzalna wàcce nañ ilaykum ci yéen doomu aadama yi ayaat mubayyanaat ay laaya yoo xam ne sëriñ bi yu leer nañ nañ nañ nañ yu ñu leeral waxut mubayyinaat mubayyinaat mubayyinaat ah waaw ku jàng mubayyanaat warsh mubayyanaat mubayyinaat ak mubayyanaat ñoom mubayyinaat mooy yoo xam day ñëw di leeral mubayyanaat mooy yoo xam dañ ko dañ koo leeral kana ko leeral suñu borom yàlla wàcce naa ci yéen ay laaya yoo xam ne da leen di leeral lu baax lu ngeen war a def lépp di leen leeral lu bon lu ngeen war a moytu waaye wa masalan nekk lu ñuy xalame min alladina xalaw min qablikum ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon xibaar yi ña leen jiitu woon ña baaxoon te jiitu woon leen la leen yàlla sa borom faye ña boo ña bonoon te jiitu woon leen la leen yàlla sa borom faye lépp ngi ci alxuraan xoolal li ñuy li ñuy li ñuy laam-laamele ci réew mi nii nga xam ne fi mu toll nii tembe daanaka mooy mawdoo bi ay góor ay góor jigéen góor jigéen xoolal loolu ba ca yàlla waxee xoolal loolu ba ci suñu borom yàlla waxee kenn xamul kañ la bis bu set yaa ngi koy jàng ci alxuraanul karim bis bu set kon ña la jiitu woon doon def yëfi góor jigéen fa yàlla jaara ñoom bu fekkoon ne te alxuraan da ne wa ma hiya min alwaalimina bi baid bi mu noppee ci niti luut ni dane màkk gii nag nañ xam ne soriwuñ min azalimin wa innakum la tamurruuna alayhim musbihin wa bi leyli afala taaqiluun bi mu set maanaam yéen a ngi romb dëkk ya nga xam ne fa la ñooña dëkkoon la leen yàlla def itam yéen a ngi jeexe ji bala yéen a koy gis yéen ba léegi yéen a gis jeexit bi
wa mathalan min alladina xalaw min qablikum waaye mu nekk wa mawisa mu nekk ak waare alxuraan ak waare la ci ñan ah lil muttaqin ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñooñu la alxuraan di waar waaye ku ragalut yàlla alxuraan mënu laa waar koo xam ne itam maanaa amoo xasiyatu alxuraan du la jëriñ dara koo xam ne itam jëlewoo li ngay jaamoo yàlla ci alxuraan fas yéene koo topp alxuraan du la jëriñ dara innama tundiru man ittabaa dikra wa xashiya arrahmana bil xaybi innama tundiru alladina yaxshawna rabbahum bil xaybi ñooñu kese nga mën a war mooy ñi nga xam ne am nañ xasiyatu ñi amuk ragal yàlla ñooñu nga mën a waar ci alxuraan alxuraan bu ñëwee fekk la ngëm fekk laa ngëm dalay dolli ngëm fa amma alladina amanu fa zaadathum imaana ah wa hum yastabshirun waaye gaa yi nga xam ne bi alxuraan di ñëw da leen fekk ak marad fekk na seen xol yi daa tawat wa amma alladina fi qulubihim maradun ci wàllu nifaaq ak yu mel noonu wala ñu yori bidaa yor ci lu dul jeex ñooñu bu alxuraan ñëwee itam fa zaadathum rijsan ila rijsihim wa maatu wa hum kafirun wala yazidu zalimina illa xasaara wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra alxuraan mu dool bàyyi benn mu yokk ci yow ngëm yàlla wala alxuraan far mi ngi mel ne boo ko doon joxe misaal rek garab goo xam ne si daa am ay reen yu dëgër a dëgër ci jamonoy nawet bu ndox mi ñëwee mu tawee ñaari fan nu nu mi mel garab gi naat lool naat lool waaye garab goo xam ne si maanaam moom li ko te li ko teewoon ci suuf daanaka ñaari reen ak ñetti reen dong la ndox mi bu bu bu bu wàccee. xam nga ni soxla ndox mi ni muy dugg ci suuf ñaari fan laa ko may lu muy def këpp lay def këpp lay def daanu man nga di ñëw ci jotaay tafsir yi ay ati at ay ati at waaye yàlla moom mi nga xam ne xam na ne yaa ngi ñëw ci jotaay li ci sa xol bi xam na ko da koo xam mu xamee ne yow mi jubluwaay bi nga am mooy dolleeku rek rek rek ak njub rek rek rek da lay gën di yokk rek da lay gën di dolli rek mooy gën a baax gi ma doon wax rek dangay gën a baax rek waaye gis nga bu fekkee ne yàlla daa am lum xam ci sa xol bi ne moo la dem moo la tax dem ca jotaay ba te loola jub dëppoowut ak ngërëmam ñaar fukki at maa la ko may ñaar fukki at fanweeri at sax may naa la ko nga ñëw jotaay def si kenn du ko xam yow kenn du la gis ba xam ne mi ngi lay sotti waaw lu tax ndax xol bi la yàlla sa borom gis ne xol bi yeyoowut walaw alima allahu fihim xayra la asmaahum yaa ngi ne ko dégg alxuraan jële ko de yàlla bala ngaa jël alxuraan day fekk mu xam ci sa xol bi ne daa yeyoo alxuraan waaye bu fekkee ne xam na ne yow mi am na yoo denc yoo xam ne benn ak rëy la sa asrifu an ayaati alladina yatakabbaruna fi l ardi bi gayri lxaq wa in yaraw kulla aaya laa yuminu biha wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxidu sabila wa in yaraw sabila alxayi yattaxidu sabila juróom dalika bi annahum kadabu bi ayatina wa kaanu anha gafilin loolu tam naa bàyyi wàlla xel yàlla ñu yàlla sama borom boole ci ñi alxuraan di nekk rabi an qulubihim wa jalaa ahzanihim wa dhahaba humumihim wa ghumumihim amin ya rabbal alamin